di gunal day garam di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara صالحا نوتها jàll ci soxna mam jaara jàkk ndax de aoudu billahi min alcheytani rajim aoudu billahi min alcheytani rajim bismillahi rahmani rahim wan najmi ida hawa ma dalla sahibukum wa ma

فكان قاب قوسين الصراط المنتهي عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم صدق الله العظيم alxuraan bi sell na macha allah alhamdulilah bu ko defee ñu jàll si soxna Mame Diarra Xuma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا الساعة آتية نكاد أخفيها نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها من لا يؤمن بها فاتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم moom mi nga xam ne moo ñu may yaakaar naa euh, li tax ñu mën a fekkee lii te teewe alxuraan ji ba mu def ñu ni ñu mel ni tey ba ku ñu gis naw ñu ngi sant bu baax di leen jaajëfal wasalaamaaleykum it euh, jotaay bu am solo boo xam ne dafay feeñal liggéey bi nga xam ne euh, jeexital la ci liggéey Serigne Moustapha Bachirou Mbacké waaye it ay sëtam wala ay sëtaatam sax di ko dundal ginnaawam ci jotaay bu am solo bi nga xam ni lu ama am solo la waaye dafa nekk jotaay boo xam ne soññee la ci kilifa yi soññee it ci tutànk yi nga xam ni toll nañ ci li nga xam ni mooy liggéey bu am solo bi ci fesal ko àdduna bi xam li nekk Sénégal lan la waaye li nekk fii ci Porokhane lan la kon euh, ci kanam tuuti xam naa bu 15 heures jotee muy trois heures danañ amal beneen jotaay boo xam ne ni mooy xamle daara ji ak liggéey ba naka lay doxee ak euh, naka lañ koy saytoo waaye naka la ñuy gën a siiwale liggéey bu am solo boobu ngir nit ñi gën a xam njëriñ li nga xam ne am na ko solo ci li nga xam ne mooy jëmale réew mi ci kanam jaarale ko ci buntu xam-xam te loolu mooy li nga xam ne moom la fi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi doon ndono li nga xam ne mooy ndonal dëgg-dëgg kon euh, sëtaat yi muy daayirat fulkul mashhun ñu àndoon ci ak daara Poroxaan ñu yabal fi ñi nga xam ne ñooy tuut tànk yi fekk na it seen mag ñi jiitu nañ fi ba wàcce fi kaamilu alquran ñaanal ci kilifa gu tedd koo nga xam ne mooy Serigne Moustapha Bassir waaye ñaanal ci njaboot gi ñaanal it xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké sunu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko kon euh, mbokk yi ñu bàyyi xel jotaay bu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci Porokhane te dara ëpp ko solo nag ci li nga xam ne moom mooy màggal gi ndax mooy dëgg dëgg màggal gi mooy xamle lan mooy euh, yoonu murit xamle kan mooy soxna Jaara Buso waaye xamle lan mooy liggéeyu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba kon ñu leen di jox euh, tuuti rek ci kanam bu 15 heures jotee rek ñu dellu siwaat fii wéy ak ci jotaay xam-xam yi waaye nag dañuy ànd ak yéen ci li nga xam ne moom mooy programme yi jërë ngeen jëf منها ملك الذي ليس له مباي لي خاتم خاب عن المباي ناجاني العليم والخبير وجاد للواسم والكبير فرغني الجميل نعم النافع dikunal day garam di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara